yow sëñ bi bu ñëwoon tey jii ni la damaa bëgg nga liggéeyal ma diw doo ko liggéey. du ma ko liggéey. damaa bëgg nobanteeg diw bëgg nga ñu. boole waaw soo waxee danga bëgg nobante ak nit. waaw loolu dañuy wax noob. waaw gis nga Fatia baax de kullaaye bi ngay gis Fatia. alhamdulilah rabbil alamin duñ ci ñëw. mais noob koo xam ne tey jii ku jigéen a ñëw ni la noobal ma ñànku mais toog. Mm-hmm. wala noobal ma saaneex. Mm-hmm. te ñaan ko yëgul saa neex yëgul da ko koy defal waa dama koy defal si benn méthode dama koy seet ba pare waaw soog koo defal waaw dama koy xool ba xam ne seen rawaan yi dëppoo na mais bu ma bëggul nobanteeg moom nag déedéet te yëguma ko tinuma ko des fois nit ki dina ñëw si yow benn anam boo xam ne nii waaw lim la soxla lim la sant waaw bu dul lu bon rek da nga ko ko war a defaral mais mais mais jigéen mën na ñëw ci yow sant ma benn sant la benn nob boo xam ne man yëguma ko ma defal ko ko <coughs> mais bu fekkee bëgguma nobanteeg moom na nga loru xam nga la moo tax ma koy defal waaw si condition bi mu ñëwee man. waaw seexu waaw man ñett yii laa gën a mën a dimbale. sëñ bi man loolu d' accord ma ko. waaw yow d' accord nobu ma nit. waaw yëgu daf ma nopp. wala topp na maa ngi ñëw. topp ah. na ma ba sonn ma bañ. Mm-hmm. mu ñëw ci Cheikh Ibrahim ni ko noobal ma saa neex mii ndax dama ko nopp. nga noobal ma ko ma topp ko ci perti perti ci dëkk bi. léegi est ce yow te te te te te te du sama tayeef. mais est-ce que yow. waaw yow waaw. njëkkoo dem si sëriñ. waaw ne ko noobal ma jigéen bii. si déedéet déedéet bu ñëw nekkuñu ci contexte boobu. Euh, non waaw xam nga da ngay wax nekkuñ si loolu. waaw nekkuñu ci contexte xam nga ci contexte lan la ñu nekk. Mhm. est-ce que doo ko ne wool ma diw mi nga bëgganteel ba mu d'accord ni yéen ñaar bëgg ngeen ànd ba pare. man li may noobee nit. waaw soo ñëwee na ma seexu laa bëgg comme jëkkër waaw ma seet ko seen biddi wi ànd waaw seen sëy bi am mucc waaw ma boole leen ngeen sëy mais bu fekkee bëgguma nag léegi nag bu fekkee ne yow bëggoo ndaw si di nekk ak moom nag chaque jour li nga bëgg ndaw si di la ko defal te takkoo ko fu mu jëm boo waree takki jabar da nga ko fay war dem takki keneen non waxuñu defal yow wóoru ndax mi ngi may defal wala defal mën na am ni sax bi ma gis non dafa am contexte boo xam ne bu ko jigéen ñëwee waaw man damay xam ni mu ñëwee lan la seexu hmm, d'accord waaw wax ma rek ñett ñii laa gën a mën a dimbale waaw mooy ki ñàkk ba yoru dara waaw jigéen ji sonn si mm. sëyam mm. ba jëkkëram mënu koo respecté waaw ak góor gi gën a bëri lu muy tawat ci alal ju yàqu ah yow loolooy sa fort léppay sama fort mais dama la wax ne la ñetti ñi heure buñ daanoo si sama tànk yi mm, nga kontaan damay kontaan parce que damay xam ne yàlla moo ma boole ak ñoom ah waaw waaw moo tax ma ni la loolooy yow loolu mooy sa spécialité mooy sama spécialité boo xam ne su ma ko amee man damay kontaan